borom subhaanahu wa taala di ko jéggulu ci mboolem suñuy rëcc-rëcc noonu la ñuy jégguloo mbooleem jullit yi fi teew yëpp jëpp àq joo xam ne dox na suñu diggante gi yéen muy jun yëg ak jun yëgul di leen jaajëfal ci coono yi nga xam ne toogoo ngeen ko ngir bisub Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne amuñu lu dul moom muy mbokki taalibe yi fi nekk yëpp ak suñu mbokki jullit yi nga xam ne kenn desul eh, waa kër maam Alaaji Malick waa kër Baye eh, ñëpp kenn desul ku ci ñëw nga def ci sa alal ak sa doole ñoo ngi leen di sant sant moo xam ne am na tàmbaliwaay waaye amul fu mu yem di sant mbokki taalibe yi nga xam ne lépp lu ñu woote ci sëriñ bi di ci def luñ mën def ci luñ mënul waaye nag ñoo ngi leen di bàyyi sëñ Tuubaa mi nga xam ne ñi ma wut bor daa amuk pay lépp loo xam ne waaye jëf na ko ci muy lu néew wala lu bari noo ngi ñaan ci barkeeb ku tedd ki bala ñu agsiwaat fii déewén yàlla na ngeen yokk ba yëg ko ci barke Xaadimul Mustafaa yàlla na ngeen mucc yàlla na ngeen wér ci barke xaadimul Moustapha suñu xol seet na guy ci yéen ndax lépp lu ñu mës a wootee def ngeen ko ba def ko lu raw ni ko bëggee woon bu loolu jàllee itam ñoo ngi am ay kàddu yu ñu jàllale yoo xam ne dañ koy tàmbalee ci suñu bopp ndax sëriñ bi li mu bëgg ci ñun mooy ab yar ak i teggin ndax moo wax ne is kullu man bi xayrihi raama tiba fa innahu yaxramu fawsan wa intifa wa huwa fi daarayni xayril kanzi wa xayru ma tas bi soo izzi yéen sama waa bi maa ngi leen di ci yar ak i teggin ndax lépp lu waay sàkku ci kaw suuf te jiitaloo ci yar ak i teggin daañu la xañ ak jariñu ak ak texe te moom teggin mooy ngeen gi trésor lépp lu waay di sàkku ci àdduna rek yar ak i teggin moo ko ëpp solo kon nañ gën a dolliwaat sunu taxawaay ak comportement bi nga xam ne war nañ ko amee ci biir tubaab yi ñu nekkal ak mbokki jullit yi ñu nekkal muy nekkin wu rafet woo xam ne ku nekk war na la ndax sëñ bi wax na ne moom teggin huwa lesi jaala xusnil kii yubqi jahalatan wa xubxi nasabi teggin moom képp mooy loo xam ne ku ko am dana la nëbbal sa ñàkk xam-xam dana la ñëpp nëbbalit askan wu suufee kon war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax ci comportement yi ak melokaan wi xam ne ñoo nekk ay nit te kuntum xayru ummatin uxrijat linnaasi nun ñooy xeet yu nga xam ne yonente bi wax na ne aw xeetam moo gën ci xeet yi sëñ Tuubaa waxaat ne adxaltu nafsi wa jamii ahli fii bi jaybi afdalil waraasul fatli jël naa sama ñooñ ak sama waa kër def leen ci jibay yonente bi sallallahu alayhi wa te sëriñ bi li mu tànn xayrul xiyaar la kon nag ana nun ñooy ñan nun ginnaaw xam nañu ñun ñooy ñi gën ci nit ñi ndax tànneefi tànneef lañ war nañoo xool suñu comportement suñu digganteeg ñi ñu nekkal ndax nit ki soo bëggee mu fonk la wormaal la da koy jox cër yox ko worma ci nekki ni ci kaar yi comme ni ñu ko waxee ci ginnaaw ci banque yi di sol yére yu set bañ wañ soo ku yor njañ dee ko defar ba mu jekk di sol yére yu set di wut parfum di ko xeeñ bañ di yor ay bagages yu bari di xetal nasaraan si ci kaar yi bañ di dagg ay ay rang yoo xam ne ay nit dañ koo yore di rang di dem ci kaar yi nga gis koo xam ne dañu dagg rang ba loolu ku ne xam ne du yëfi nit yor ay tableau yoo xam ne xëy na gudd na ba ëpp nga dugg moom ci kaar te mën nga am beneen pexe yi loolu mat naa xoolaat bu baax a baax dëkk nii yooyu yëpp maanaam ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel mbedd mi nañu xam ne respecté ay loi ci gëm yàlla la bokk te ñun sëñ Tuubaa mi nu yaakaar danoo digal ñu fonk nit te fonk nit bokk na ci loi yi ñu tëral nga respecté ko néewuñu de na ngeen bàyyi mbedd mi ndax ku leen bàyyi loo mbedd bi amul fu mu leen waaye nag sañ nañoo wax ne képp koo xam ne lal nga ci mbedd mi dañ tereel la jógal ndànk bu koo ko demee nga ree kaf bàyyi ko mu dem boo lëggee nga lalaat waaye soxlawut ñu yëkkati la ngay xeex wala ngay dóorante te waxan nañ fi ne nga nga tooñ ñu dimbali la nga tooñaat ñu dimbali la góor su ne war naa moytu saa boo tooñ yaakaar ku la dimbali te xeex ak xuloo faju dara Sëriñ Tuubaa mi nu yaakaar moom li mat a wax lépp wax na ko kon nañ gën a góor góorgóorlu ci melokaan yi ak comportement yi bu loolu jàllee tam yii ñu fi wax yépp bari na ci ñoo xam ñu ngi teew ci daayira yi suñ borom dimbali nañu ci ba li nu bëgg ci éducation mi ngi am ci ñoom kon ñoo ngi sàkku ci bépp taalibe fépp foofu taalibe nekk rek na nga dem ci daayira ba la gën a jegeñ ngi bindu fa àndandoog mbokk taalibe yi liggéey bi ndax bu loolu amee rek li nu bëgg muy sensibilisation bi nu bëgg ci taalibe yi dina am muy daayira tiijaan muy daayira xaadir muy daayira laayeen muy daayira murit fépp fu fi nit bokk li wacci laayi taala na nga dem di bokk ci daayira ba di fa teew di déglu ndigal yi ñuy dégg diglee nga di ko jëfe bu loolu amee li nu bëgg dina am te kenn du sonn waaye nag nga def def jëfin woo xam ne da ngay yóbbaale Sénégal gépp ñu ne Sénégal yi nii lañ mel boo ko yëgee boo ko tooñ nga mboolem Sénégalais yëpp kon nag ñun ñëpp war nañu fexe sensibiliser suñu comportement xool li nit war a def mu di ko def ndax nit nag bu nekkee ci biir nit war naa fexe ba xam doxalinam li ko war xam sa àq dafa baax lool waaye nag kuy laaj say droit te xamoo sa droit loolu day na waar kon nañ fexe ba xam li nga xam ne mooy suñuy droit ci dëkk bi ñu di ko def xam li nga xam ne nit ak nit ak moroomam séq nañ ko mu war koo respecté mu di ko def ndax tubaab yi ay nit lañ. te àq ku ko yore nit di nga ko fay te suñ boroom lépp lu mu sàkk bëgg na la ndax bu la bëgguloon du la sàkk kon nasaraan si ay nit lañ comme nunti yàlla leen sàkk kon bu loolu jàllee ñoo ngi jàllale ay kàddu di ko jox jëwriñ Bamba mu kon na ci liggéey bi ngir dañ fa yëkkati woon liggéey boo xam ne mi ngi jëm ci kër sëñ Tuubaa gi nga xam ne dëgmal nañ ko tudd ndëpp ñu woote ko le 26 décembre bépp taalibe boo xam ne nekk nga ci dëkk bi bépp jullit boo xam ne nekk na ci dëkk bi ndax ñun bu ñuy wax xàmmee ñu tiijaan bi ak murit bi ndax ñëpp benn njaboot gi la te ñoo leen ñoo leen bokk seex kon 1000 pesos lañ sase bépp taalibe boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi le 26 décembre bëgg nañ ngeen ni 1000 pesos di yéen yëgle saal bi ñu koy defee incha allah rabbi bu loolu jàllee itam ñoo leen yëgal ne kër gi moom tuuti rek la ñuy xaar moo tere tàmbali liggéey bi kayit yi titre foncier bi la ñuy xaar bu soobee suñu borom bu sotteeg jàmm. ñëpp daañu ko yëg ñu ñaan yàlla nag ci barkeb Serigne Touba ci barkeb bis bii bu déwénee incha allah rabbi ñu dem ci kër Serigne Touba ngay màggale fa Serigne Touba donc noo ngi koy ñaan taalibe yëpp jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax dëgg yàlla di sant bu baax. di jiital ci ziar geeg cant gi ay ñaan jëmale ko ci sëñ Cheikh Sidi moxtaar Mbacke di ko ñaanal mu gën a yàgg gën a wér ba liggéey bii nga xam ni moom la naanal maamam ju tedd ja mu def ci lu kawe njortam te ànd koog mbooloo mi doomam at mbooloo mi sëtam di ziar sëñ Cheikh jëmb bu baax a baax it kasaali ko di ko ñaanal loolu at mbooleem koo xam ni rek xalifab seexub sëriñ Touba nga di ko ñaanal it mbooleem kilifa diine yenn Sénégal yëpp te ñoom ñëpp seen yitte di fexe ba diine sañu boroom ji màgg jëm ca kanam te loolu rek mooy yilla yilla liggéey bi loolu képp la ñu ngi ziyaar nag mbooleem eh, taalibe yi ne ci Argentine yëpp ziyaar googu nag ñu toxale ko jëwriñ sëñ njànkoo ba mu jàllale ko ci mbooleem koo xam ne rek taalibe nga nekk ci dëkk bi moo xam foo ci mën a féete di leen xamal it comme noonu mu koy waxe saa ne ne xolam sedd na ci liggéey bi guy ndax dëgg yàlla fépp foo xam ne woote na rek mbooleem taalibe yi bàyyi nañ seen yitte ñoom ñëpp teew fa ndax dëgg yàlla e, xëy na doole fédération bi moom ñëpp xam nañ ko waaye li fédération bi am am am doole maanaam taalibe yi moo ñoo lànqalu lenn sëñ Tuubaa rek moo tax ñu yëg ko ndax dëgg yàlla lu ñu doon jàmbaar jàmbaar ñun ñu jiitu bu ñu bëggoon a dem te yéen ñi ne sañu ginnaaw ñëwu leen maanaam day day day yàgg rek waaye yi mu dox gi mën naa yéex kon nag ñu ngi feeñal mbégte goo xam ne ci mbooleem koo xam ne ab dongo nga rek te yaakaar wax dëgg yàlla mbégte goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem li fi yaroon a soññe nag lépp jëwriñ ji wax na ko xanaa rek li leen ciy tegal rek mooy programme fédération bi ndax kat boo xoolee eh, mun nañoo wax ni le 25 décembre jamono ji nga xam ni sëñ Cheikh Mati lay Mbàkke mi nga xam ni moo ne ci dëkk bi te jamono ji ñuy wax ak yéen nekk senegal keroog ba mu ba mu amee yitteem juree jooj te yitte ji du woon lenn lu dul fexe boole. taaliba sëñ Touba yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu àndandoo doon benn ngir liggéey sëñ Touba bi fañ ko bëgg a yóbbu ñu yóbbu ko fa yitte jooju keroog bi biñ ci defee yitte dëgg dëgg dëgg xam nañ ne lii taxaw tey ci bis boobu la taxawee ñu jël jëwriñ sa ñanqooma nag jiital ko topp la ci tefal ci yeneen mbokk taalibe yoo xam ñu am passeef lañ yoo xam ci ginnaawam ngir ñu ànd ak moom ci liggéey ba daanaka moo wundi jëwriñ yi taxaw fii yëpp ba loolu amee nag liggéey bi ñu tënk ko ci ay ay ay ay ay yoo xam ni ak i liggéey yoo xam ni kenn ku ci ne rek xam na ni ah foo mën a nekk dëgg nga liggéey yooyu na mu demee woon loolu mooy lan muy kër sëñ Touba gi nga xam ni mboolem ku ne ci seen ci ci ci biir dëkk bi rek am nga yéene am nga pas-pas am nga bëgg ne bu la sëñ bu la sañu borom joxoon xéwal yi ka mat dëgg dëgg yow képp yaa koy tabax yow képp yaa koy defar waaye daa fekk nag ànd mbooloo daa gën a taw féexe lépp kon ñu xam ni lenn ci programme bi la bokk. loolu it ñu am lu ñu leen ci leeral ndax keroog bi ñu taxawee ci assemblée général bi nga xam ne le 2 avril la woon ñoo fa taxawoon wax leen ne leen bu soobee yàlla de bu ñu daanelee micro yi fas nañoo def yitte lépp lu ñu mën a def ba am kër sëñ Touba ci daar daar bi danañ ko def keroog yi biñ ci noppee defe naa ni yittee jëwriñ ci at ñu topp ci ginnaaw mooy saa su ne fu ne ñu ngi fa doon dox di làmbat pour pour pour daj kër sañu borom dogal nag ne. am nañ kër sëñ Touba li tax ñu ne am nañ kër sëñ Touba gi mooy gis nañ pàq boo xam pàq bu mucc ayib la dem nañ fa waxtaan ak ñoom ba jot ci njëkk njëg loolu yi dog nañ ko ndax joxe nañ ci avance te li ci des sax mën nañoo wax ni lu néew a ci des pour ñu mottali ko mottali gi nag li waral sax fi mu nekk nii yeggagul mooy maanaam waa administration bi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu këyit yi. ñu ànd ak seen escribania di ko dox at ki nga xam moo ñuy jaay kayit yi ñoom ñoo desee defar ay kayit yoo xam ne pour kër gi mot loolu képp nga tëye waaye ñu ngi leen di xam ne kër Sëñ Tuubaa moom am nañ ko te it li waral am gi moom du leen lu dul rek jàpp gi ci mbokk taalibi yëpp jàpp mu sotti waaye nag dañoo war a xam ni dëkk bi moom tàmbale fi yomb na waaye yeggale fi moo jafe kon nag soññe gañ soññe woon ba ñëpp ñëw indi seen contribution tey lañ ko gën a soññe le 26 décembre bi ñu wootee assemblée général di ci woo képp koo xam ni mbégum sëñ Touba mooy sa mbég ni mu ko waxee woon ci bis bi ñu ngi lay woo ci bis boobu jëwriñ nag mille pesos la ci sase képp kuy ñëw rek ñu ñu ñu indaale ko ndax jàpp nañ ni balaa ñoo jëm ci boobu danañ wax waxi fondement ak waxi teg xeer te dañoo bëgg nag addi jooj ñuy laaj mbooleem murit bu ne Argentine rek sa ñàq dem si kon ci ginnaaw loolu ñu ngi soñe di dellu soñewaat di xam ni képp koo xam ni rek ab ku yaakaar sëñ Touba nga dëkk bi bëri na at ay daayira capital bi daayira bu mag baa ngi fi kër këraan yaa ngi fi boo demee Liguères Morone eh, Flores Ezeiza eh, Marco Paz José Sepas fépp ay daayira nga fa ñu ngi ñaan ngir yàlla na daalibe yëpp jokk ci daayira bi ndax jokk ci daayira yi mooy tax liggéey fédération bi gën a jëm sa kanam ndax mu nu mënuñoo dugg ci kër yi xëy na di laaj laajaat waa daa mel ni bu ñëpp jokkoo ci daayira yi rek li ñu bëgg dinañ ko gën a am kon ñu ngi jokk ci daayira yi gën cee dem bu loolu weesoo it ñu xam ni kon le 26 décembre boobu woote nañu ci assemblée générale bu mag leneen li ñu ciy wax mooy ñu ngi woo jëwriñ yi bis ni ki tey it ñu tàmbale coordination bi ci seen daayira yi ndax xëy ne mun naa bañ ba bis bu ñëwee mu jàmp kon ñu ngi wax jëwriñ yi képp ku ci dellu sa mbooloo rek 1000 pesos yi nga xam moom lañ soññe pour wàllu eh, assemblée général boobu nga tàmbale ko di ko lancé di ci waxtaan ñu jëm ci loolu loolu weesoo it. bis bii tamit ñu ngi sant ñëpp ndax wax dëgg yàlla kawe na njort li ñuy ñaan rek mooy yàlla ñu ko sëñ Tuubaa nangul booleel ñu ko ci màggal ya nga xam ni moom la nangu te làqal ñu ko foo xam ni yàq du yegg ba mucc loolu moom ñu ngi koy ñaanal képp koo xam ne rek ci fédération nga bokk kon daanaka boo xoolee e, looloo fi jot a wax leneen li ci des nag mooy Touba sa kanam gi nga xam ni doon nañ ko lancé bu soobee yàlla dañuy jox e, jëwriñ Pape Soda dana ci am kàddu yuñ ciy yëkkati nga xam ne moom lañ dénk liggéey boobu liggéey boobu it liggéey bu yéeme la te am solo te kenn ku ci ne xam nga ni war nga cee bàyyi xel luy jëmale Touba sa kanam moom daa mel ni mbokkum taale bi bu ne sa yitte la war a doon kon dañuy bàyyi jëwriñ Pape Soda rek bu fekkee fàttewuñu dara loo xam ne luñ ci war a dugal la ci fédération bi ñu dolli ko ci bu fekkee mënut si ne ñu jox jëwriñ Pape Soda mu am kàddu yu ci tàbbal ci wàllu liggéey boobu rek bu ko defee rek ñu dox jëm ci kanam asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. macha allah macha allah. auzubilaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki taalib maa ngi leen nuyu di leen siyaar bu wér a wér di leen jox seen wàccuwaay di leen jéggal tey ñaan ngeen jéggal ma tey ñaan sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke mu yàgg fi lool ak sëriñ Cheikh Jëmbu Fall ak njaboot sëriñ Touba gépp ñun ñi nga xam ne ñooy seeni taalib suñu borom yàggal ñu fi tey ànd ak wér barkeb sëriñ Touba mbooloo mi may leen ñu tuuti déglu benn juróomi minute rek mu àggale coow li bari na lool ba moom mii di wax sa xamul lu muy wax ñu ngi leen ko ñaan ngir yàlla jëm sëñ Touba may leen ñu tuuti déglu rek. Euh, di di ziar jëwriñ Serigne Touba muy Serigne Yankhoba Gueye ak ki toppale si moom di sëñ Bamba Niang ak euh, waa fédération bi yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar si bis bu màgg bis bi nga xam ne mooy 18 safar. man dama ni le 4 avril la Sénégal am indépendance waaye man dama ni de 18 safar mooy sunu indépendance. ndax jàmm bi ñu ko amee mooy keroog bi sëñ Touba demee nga boom ba ñibbisi Ndakaaru jour boobu la Sénégal commencé am jàmm ba mu ñibbiseegul booba tubaab yi dañoo ñëw portugais yi ñoo basé woon Saly Portugal di jël néew yi di leen def si bateau di yóbbu Brésil ak Portugal di leen wecceeku keroog bi sëñ tubaa ñibbisee ca la loolu dagg kon nag man nee naa 18 safar ci la ñu amee indépendance di leen dénk di dénk sama bopp di leen dénk yéen xale yi tey jii yéen yéenay ëllëgi Sénégal doomu aadama day xam li mu am mooy lan yéen a ëllëgi c'est avenir de li français naan avenir de demain mooy ëllëgi senegal yéen yéen ay ëllëgi senegal yéen xale yi rik maa ngi dénk sama bopp di leen ko dénk loolu day lu rëy ndax xale mooy mujj am réew kon nañu gëm suñu bopp ni ko jëwriñ sëñ Yankoba waxee xam fa ñu jóge sëriñ Touba dafa seetloon bés bu ne booy xëy liggéey na nga seetlu di sol lu set bu la Touba tooñee sax na ko baal bul xuloo bul xeex xam ne yow yaa nekk si réewu jàmbur policier bu ne laali na nga laali bul dóor ni ma koy wax a saa su ne benn policier bu ne drapeau national représenté benn policier bu ne boo dóoree benn benn policier mi ngi mel ni dóor nga Argentine gépp kon maa ngi soññ sama bopp di ko soññ ñu gën a jox cër maanaam homme de yi nga xam ne ñooy sa dë si dëkk bi ndax réew mépp moo leen takkal garaat policier boo ñàkkal fayda ñàkkal nga réew mi fayda kon nag maa ngi koy dénk sama bopp dileen koo ko dénk ni ko jëwriñ sëñ Yankoba ba waxee bu loolu weesoo muy Touba sa kanam maanaam Touba waruñu see xaar sax état gis ngeen ren ni mel ak ndox gis nga ren janatu janatu dongu màggal gi manqué ndox ak yeneen quartier yeneen quartier maanaam Serigne Touba lim ñu defal dañ koo war delloo si dëkkam bële Touba dafa war a rafet comme Madina war a mel comme Makka waruñu see xaar état waruñu see xaar dara bi ñu waxtaan ba ne 1000 pesos par weer am na jëwriñ ñu jël seen carte. seen talon talon yaa ngi nii andi nañ ko léegi góor a ngaay li ma bëgg yónnee woon nañu euh, ñaari weer yëla passé un million quarante mille yu teg weccet moom la Argentine gépp yónnee woon te dañu ni weer wu dee dëkk bu ne réew mu ne da war a yónnee sa àddina ñu def ko si liggéey ba si màggal gi rek fondement nañu ñeent poste de santé te loolu ñoo ko war a liggéey ak yeneen ak yeneen kon nag li may ñaan mbokki taaliba yi fi ne sëñ góor a ngaay waaw at mi douze mille cinq cent CFA la ku ko mënul léegi li ma bëgg ndax màggal gi passé dafa war a dem jëwriñ yi fi ne nañ ñëw jël talon bi yóbbaale ko li ma bëgg góor a ay maanaam ñi fi toog kenn ku ne na joxe ñaari weer ñaari weer bi ñu ko calculé maa jëwriñ Seex Njaay bi ma teg liggéey bi si kanam weer wu ne 30 peso la ñaari weer yi 60 peso la ñu dugal ñaari weer yi tey boo ko defee ñu boole ko lu fi ne bu màggal gi passé mu dem si liggéey bi ndax kat Touba ni ko sëñ Fallou waxee at moom jógee Màkka dani lee ma gis sa penk ba waa penk ba ñoo ko fi def kon nag lii si saw bi ñu ñu dëkk si saw bi ñoo ko fi war a def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf waaw kon ñu njëkkanteeg waxtu wi rek jox maam Thierno moo am lu mu leeral ci organisation bu paree ñu yeewi jëwri nii ñu dellu ci liggéey bi góor a des fekk mbokk taalibe yi. ak mbooleem jëwri ñi taxaw fii yëpp di ay ka sànni ay kàddu yu gàtt rek ci wàllu organisation bi di ko rafetlu bu baax a baax euh, ci mboolem mbokk taalibe yi ñi nga xam ne jàpp nañ ci ak mboolem ñi nga xam ne yombalal nu ko ndax ku ne xam ne ne mbooloo mu toll nii neexut a waaye dañuy nit ñi ci boppam ñoo ci mën a jàppale ñuy wax na nag fépp fu waay nekk ñu lay woo ci liggéey fédération bi comme ni ko sama jëwriñ yi waxee rek képp koo xam ne ti bëgg nga cee bi nga jéem a jokkoo ak ñun dugg ci organisation bi ndax jamono bi dafa toll foo xam ne fi mu ne lépp lu ñuy def il faut mu am organisation bu tegu ci yoon sinon buñ ko deful rek lépp lu ñu yëkkati pour mu dem day jafe kon ñi ngi sant bu baax mbokki taalibe yi di leen gën a soññi ci comme ni ko jëwriñ waxee ci liggéey bi rek fépp fu féete rek na sa nekk sa daayira Sëriñ Tuubaa comme ni ñu ko waxee bépp daayira bu waaye di jokko rek xamal ne yaa ngi def ci liggéey sëñ Touba bi ndax ku ne xam ne addiya ji ñu yóbbu ren mu toll ci ay 11 millions nangam képp koo xam ne sa addiya demu ci war ngaa xoolaat sa bopp kon nag loolu li lay mën a kii ba sa addiya bu ñuy yóbbu ko sëñ Sidi Mokhtar mu dem ci mooy ngay dem ci daayira yi kon nañu tàbb ci daayira yi tàbb ci organisation fédération bi ak lépp loo xam ne si jëwriñ yëkkati na ko fédération bi yëkkati ndax moom moo fi nekk mooy suñ jëwriñ moo fi sëñ Touba lépp loo xam ne yëkkati na ko nañ ci taxaw jàpp ci te xam suñ njariñ kese la kenn du leen liggéey sëñ Tuubaa ku la ciy woo rek dalaa bëgg a dimbali kon ku la ci woo rek ak nu la ci mën a wooyee na nga ñëw ci sëñ Tuubaa tax kala cey woo du ca dara daa nekk ngir jëmi sëñ rek waaye man ko ko ëpp pas-pas wala nga ëpp ko xam-xam sax waaye njiit suñ borom moo koy def kon ñun ñii ñëw di tàng ci seen kaw ak di leen yuuxu ñi ngi jégalu lépp loo xam ne def nañ ko fi waay lu ko naqari di rafet lu baax seen teewaay ak addee ji ñi ngeen ci taxawee di woo ñëpp ci fédération bi organisation bi rek ku ci bëgg a tàbbi bu ci lii na nga ci jéem a tàbbi di leen jéggalu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. macha allah jërëjëf sëñ Maam kon ñoo ngi dellusiwaat rek di fàttali mbooleem jullit yi fi teew yëpp e, bisu gàmm bi nga xam ne mi ngi dëgmal te nekk ci dëkk bi te weer la woo xam ne ku ne xam ne sëñ bi yàgg na koo màggal te wax nañ ne lépp loo doon sàkku ci ku tedd ki su weeru gàmm jotee ci la gën a gaaw kon ñoo ngi sàkku ci mbooleem taalib yi fi nekk yëpp. gàmm gi nga xam daañu ko fi taxawal muy suñ mbokki tijaane yi ak mbokki taaliba yi foofu fi waay mën a dem rek te mën ko faa dundal ñoo ngi koy sàkku ci yow ndax weer la woo xam ne sëriñ bi saa boo sax digle waa gi gàmm gi la ciy teg lépp lu ci waay mën ci jëf ci rafet ak jëf ci mbaax ak teraanga na ko ci def asalaamaaleykum wa rahmatullah da ngeen jëf